dañuy bëre dañuy dal dañuy dem géej waay Fils de Balla kase waxee sax Ibrahima mu ngi noonu ci oto bi moom Fils de Balla Ibrahima jege ko Ibrahima jege ko kooku muy waxal rakkam la yan bu diis moom lay waxal ndeysaan dégg nga ko ma nga noonu di wax Ibrahima Fils de Balla dugg si na sonn nga de trop bis bi ko kañ nga nelaw kenn xamul kañ la yàgg na tey nelaw ma sax nelaw wallaahi ana Fils de Balla noo ko gisee ak moral ngi nele bis bu rafet rek lay xaar takkusaan daa yab Fils de Balla wala takkusaanu Arène Nationale yab Fils miin na takkusaan bis bu nekk bis bu mag bu ne bëri na ko. mais dafay bëri mbër boo xamante ni góor a soog nee na Fils de Balla wax bu nekk wax na ko booy bi amul yar arène nationale ci digg lay yaree Fils de Balla. waaw ah, loolu ba taay seko la dëgg mais soo bëggee dëgg-dëgg jiili jiili bisub tay jii laay bisub tay jii góor soog am na combat. billaay wallaay am na lamb ay xale yu ndaw lay bëri lamb dañoo jaral. sama ah, waa yéen a ma ko dénk yan. soow laal la soow mi soow laal. non yéen a ma yan ma wax. naan. Ah, naa nekk indil kaas ma xëy la naan. Ah. waaw. ah mu mbër di sottee ko est-ce que wóor naa def ci biir. Ah, dara nekku ci soo bëggee ma tijji naan sax dara nekku ci soow bi dara nekku ci amul saafara amul dara. waaw. am na solo. ndeysaan sama gaa yaa ngi noonu. préparation bi gaa yaa ngi waxtaan say sama waa ji moom ba xonq na cur xaw ma da jooy xaw ma lu mu nar waaye ndeysaan mbokk koy jur ndeysaan xaritam a ngay wàcc ndeysaan jooy na ndeysaan oh ay waay làmb mën lu ne làmb mën lu ne làmb mën ngaa ànd ak def lu ne wala boog gayen ndeysaan def nii waaye bàkk Seydina Mouhamed ki bu ko xol ma tooy na ndeysaan ndeysaan ni nga xale tooy deret foor làmb <laughs> ngi nii ndeysaan am jooy na ndeysaan xol bi tooy na lii mooy bëgg dëgg dëgg dëgg mooy lii bëgg nit ba amoo ci moom sago ndeysaan dama ngay jooy ndeysaan xol ba tooy na kaay Ibrahima Gora Sock ak Fils de Balla dañoo toppalante lii laa lay wax Talfa ana Gora Gora mu ngi si tarak bi mu ngi si tarak bi mu ngi si tarak bi ngeen ko gisee nan ngeen waajee ñëw non pare nan jàpp ko daan dañ dem ñibbi incha allah bu soobee borom bi maye waaw moom lay ñaan dam tay Fils de Balla nee na tay lu Gora Sock def daan non du Thiès bàyyi nañ ko wax ji rek bu dee moom ndellu maal na nay ndellu rek làmb du ndellu si biir géew bi la ñu nekk si ginnaawam yëpp dañuy xaar ñoom ñaar kese des si digg géew bi. xeex wala bëre. xeex ba pare doo ko bëre. dañ koy duma pare. dëgg lu ma wax moo mën a xale bu réew. xale bu ma góor moo mën ak moom dina ko yar léegi. aada gi noonu ñoom ñoom ñëpp ay préparateur la aada léegi nag mooy gis ay saafara. léegi nii ah. xam nga yarawul te tapet la Fils de Balla la. non du tapet moom. parce que Alaaji Fallu tapet la. léegi si biir nañu di wax na yomb mais Fils de Balla ragal bu mag la. tey di wax ci tey nga koy xam tey. te Fils de Balla la bu ñu doon rase du wax nu mu demee la rek. mi ko rey wër ko muy wax. loolu lépp lu ci après ngay comprendre sëñ Fallu. Eh. ëpp doole góor a moo mën moo ëpp doole. Fils de Balla yi nee na ñoom ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo dàq ba. géejawaay xam nañ ñu mais yéen tamit xam ngeen géejawaay. géejawaay xanaa ci Modou Lo la ñu am ñaari ndam mais ñoom ñaata mbër la fa Modou daan les deux Alioune Seye mbër yi fa débuté yëpp ba ñuy débuté Modou Lo moo leen lem Modou Lo li am si victoire amu ko fa si ay défaite géejawaay bu ñu fàtte ñoo leen mun fuuf. ay mooy dañuy leeral ñun dañuy ñëw jàpp dem ñibbi parce que xam nañ ne li ñu am nii barke Ahmadou Bamba daa am lu tax ñu jël ko mais lamb ñu ak Fils de Balla lamb boolewul Gora Sock ak Fils de Balla làmb moo waxul dëgg rek mais si kanam tuuti gars yi xam ne lépp dëgg la courant du moromu bëtëri. ndeysaan kon tey day leer. qualification bi tay la <laughs> Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla ci oto oto bii la Gora Sock Fils de Balla wàcc na kaay Ibrahima kaay Ibrahima kaay Ibrahima Fils ngi noonu di wàcc oto bi wàcc na ma ngay dox ndànk ndeysaan ndeysaan xool kook rabal bi ndaysaan xool ko xànc yi xool ko ñax yi xoolal Fils de Balla la mu sex ci gémmiñ gi ndaysaan lamba ngi ndaysaan Fils de Balla lii coow li yàgg naa am ci làmb mooy coowul porte combat bu jot nga dégg coow li kii mooy bëre mooy bëre kii mooy dugg kii mooy dugg waaw maa njëkk a bëre rek laa déggatul ci làmb loolu yëpp dañ koo changé waaye ñu jox la heure nga ngi noonu ndeysaan Fils de Balla ngi noonu ndeysaan Fils de Balla Ibrahima kaay. paa yi. ngeen dégg. léegi léegi def. soo ko sim doy. soo ko demal. dama ci biir rek ko yow kenn war naa compter. yow bu dul làmb sax war a dugg. <laughs> ndeysaan Ibrahima. ndeysaan Fils de Balla ngi noonu. ndeysaan. ndeysaan. mu ngay dugg. Ndeysaan moom ma Fils de Balla ngi noonu di dugg Ndeysaan Ibrahima Fils de Balla ngi noonu Ibrahima jegeel porte bi rek ñu accompagner Fils de Balla ba ci biir géew Ibrahima jegeel porte bi Ndeysaan Ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Ibrahima fils de Balla ngi noonu fils de Balla noo ñëwee waxul de ndeysaan waxul moo tax man la wax daa am ci ay moment la rek am na moment booy toll bu ñala mbër mi waxal sax doo wax fils de tay talut wax ma ko concentré wu rek ñi mu àndal fi mu toll nii ñooy wax. ndeysaan. ndeysaan mu ngi noonu. tey lamb mënul nekk ah mënul nekk Fils de Balla noonu ñu tegal ko poftan yi Ibrahima joggi na ko ndeysaan noonu ndeysaan dugg si moom Fils dugg si ci stade bi moom Fils de Balla ndaysaan Fils de Balla ngi noonu ak bee jënd kooba bi ndaysaan ma nga sol lango rabal ma nga yor ay njax ndaysaan takk ay bee jën ci baat bi ndaysaan yéen ca defal ay bopp tan gis naa su ci wet gi yanu diis a ngi noonu ndaysaan mu ngi noonu ndaysaan waay lamb ngi di waay Fils de na Ibrahima topp ko mu ngi ñëw Fils de Balla ngi noonu ndaysaan ma ngay dugg si a Fils de ngi noonu di dugg si waaye làmb ngi nii Ibrahima làmb mën nii ndaysaan Fils de Balla ngi nii ndaysaan xool il est confiant fils de Balla <laughs> ndeysaan ma ngay dugg ci géew bi ma ngay bajantu ma moom fils de Balla ndeysaan ma nga noonu di bajantu ndeysaan dugg ci fils de ngi noonu mbokk Gora Sock wàcc na daa wàcc rek ne léegi mu jeex ara ki doon coow Fils de Balla dee doon coow Gora Sock <laughs> ndeysaan ndeysaan Fils de Balla dee doon coow ndeysaan kaay wax mag dem dañ taali dagg war mbaam lu waaye doon jaay léegu lab ba combat bi jamaykee da koo jàppoon le 20 mars yàlla suñu boroom antuwul li ko waral mooy góor a soog moo amoon benn blessure ñu dëkk géejawaay ba ci Fils de Balla ne daa daw Gora Sock dem préparé ji faju ba état de santé macha allah wérgu yaramam lépp ne impact ni ko xale yi di waxee mu ñëw tey fas yéene laale xale bi di Fils de Balla boo gisee Gora Sock tey ni mu dugg see ni mu tuusee ni mu waajee nga xam ne làmb ji jeex na waaye en tout cas lu mën a xew lu mën a xew mooy <laughs> arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi wax ak li mu nangu ndeysaan arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Fils de Balla arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 14 août 2022 il est 20 la càmmoñ la ndijoor nga jàkkaarloog moom ñu ngi lewaatoo est-ce que dina am round d'observation ñoom ñaari xale yi Fils de Balla day dem wala Gora Sock day dem ndeysaan ca kaw la jëm Gora Sock dóor na ndeysaan cokkaas na Fils de Balla Gora Sock ñoom ñaar kenn mooy njëkk a song Fils de Balla Gora Sock Gora Sock Fils de Balla ña ngay xeex ñagay xeex Fils de Balla ngay xeex <laughs> laa ilaaha illallaah supporters yi yuuxu nañ Fils de Balla Gora Sock Fils de jiital tànk càmmooñ Gora jiital tànk càmmooñ ñoom ñaar bu ñu xeexee mu neex suñu bëree mu neex Fils de Balla Gora ñu ngi lewaatoo combat bi Madou daa nar a diire Fils de Balla Gora ñu ngi lewaatoo Fils de Balla daw na jàpp am na ngemb busulu busulu busulu waaw busulu ku nekk ak sa foor waaye Gora Sock koo yëg liir ko téye ci loxo bi boo ko defee li mu bëgg a def du sotti waaye ñoom ñaari xale yi ku ci nekk état de forme bi nga indi jaar yoon ku ci nekk fango bi door na ko laa ilaaha illallaah door na ko jël na ko caxabal daan na ko laa ilaaha illallaah Fils de Balla daan ko jël bu naa bëri ak moom jël ko jëlal Balla Gaye jëlal Balla Gaye. Balla Gaye ngay jublu. Eh, fan la Balla Gaye jëm. topp na fils de Balla. Balla Gaye eh, wane na boppam. waaye Fils de Balla na boppam. ay waay géej waay waay. ndeysaan Balla Gaye ndeysaan Balla Gaye ma nga noonu Balla Gaye ndeysaan Fils de Balla am na góor a sot dëkk bi dëkk bi bay. dëkk bi ndaw lii ma gaa. bu ñu tëkk lu ndaw waaye. concentré na de. kenn li ngay séen. booy bàyyi la seen booy. ci ni nga bëree góor a soog. parce que sama papa. Père Diaw démb daf maa woo gërëm woo ma téléphone. boo xam ne treize minutes na a soog bu mu ci loxo góosu. nu mu waxee loolu laa ko defee sant bu baax di sant si Pape Mama jërëjëf.